jërëjëf Seydina ñi ngi delluwaat di la nuyu di nuyu madame Badiane mi nga xamante ni moom ngeen àndal di dellu di leen dalalaat jàmm ñi ngi fii nag ci kër Mouhamadou Lamine njaay ñu gën ko xam ci Pa Lamine Ndiaye mi nga xamante ni mooy le président de l'Union des Sénégalais de Cincinnati Union des Sénégalais de Cincinnati nag buñ ko waxee xel yi day dellu si ci association des Sénégalais de Cincinnati bi nga xamante ni moom la njëkkoon nekk mooy année yi nga xamante ni sénégalais yi ci lañ commencé rallier di ñëw Cincinnati boobu fekkoon fii ñi nga xamante ni ñoo fi jiitu si boo ci limee Mouhamadou Mara Ñing lim ci Mouhamadou Kayta Thiam lim ci Valdi Thiam ak ñoom Ahmed Fall rek lim nga ñëpp ñu koy doxal ba ñoom Saaliwu Njaay ñëw jaax fi it comme président de l'association de Sénégalais de Cincinnati liggéey ci liggéey bu rafet fekk lu jiitu loolu ñoom Mouhamadou Mara ñi ngi nekkoon nañ fi président de l'association des Sénégalais de Cincinnati mu continuer di dox di dox ba nga xamante ni yegsi nañ ci reenu Palamin Njaay mi ñu toogal nga xamante ni mooy président bi moom li ko ci dal loolu dafa dàq lépp ndax moom neewul ñëw leen ma jiite leen senegale yi ñoo ko fekk njabootam nekk fii ci Cincinnati mu nekk professeur ci école bu nekk New York doon fa jàngale waaye am benn tànk Cincinnati am benn tànk New York bi mu demee nag ba décroché dem retraite sénégalais yi ne ko ñëwal Cincinnati jiiteel ñu Union de Sénégalais de Cincinnati bi loolu amee it lépp loo xamante ni waroon na ko ak digganteem ak sénégalais yi rek doxal na ko ba mu mat sëkk kon day baax occasion yu mel nii ñu profitoo remercier ko ci loolu ndax ku décroché vraiment que ni mën nga toog ak sa njaboot mën nga jël sa temps jox ko sa njaboot mais dafa ne njabootu sinsinaat yépp ñooy sama njaboot kon kooku mooy le président de l'association des sénégalais de Cincinnati man nag en tant que porte-parole na ma xam effort yi nga xamante ni daf koy def xam li nga xamante ni mi ngi ko ci daj ay coono temps tempsam fekkewu ko jotam fekkewu ko waaye it poosam ak alalam ak fekkewu ko kon ñu bàyyi leen ak rek le président de l'association des Sénégalais de Cincinnati xëy na du ñàkk ni di ngeen ko bëgg laaj ay question di leen ci tontu dina ci tontu waaye it di profitoo ci occasion bi rek di leen wax ni it ki ñuy wax El ndaw Ndao di la consul général bi nekk New York moom it yombalal nañu liggéey bi ndax lépp loo xamante ni association des sénégalais de Cincinnati soxla na ko dina ci taxaw ba mu mët sëkk tonton Lamine loolu daal moo doon kàddu yi ñu bàyyi la nga dalal say gan ñu bàyyi la nga nuyonteeg say gan. a ah, jërëjëf euh, Amadou Mbaye yow yàgg nga wax yàgg sa mag ji Alaaji Pape Gora Samb. Euh, daanaka yore communication wu dëkk bi mën naa ko waxe noonu ndax dëkk bi kuréel yi fi ne euh, defe naa ni ñoom ñoo dajale li ëpp ci nit ñi te mooy kër sëriñ Touba ak kër El Hadj waaw am na tamit yeneen i kër évidemment yoo xam ne ñoo yam valeur kër El Hadj Omar Foutiou Tall ak euh, kër Ñaseen ci gàttal daal euh, remerciement yi nga def jëmale ko ci sama jëmm ji faw ma delloo ko waa Cincinnati waaye jaare ko ci yéen te di leen wax ne liggéey bi ngeen di liggéey c'est essentiel waaw parce que lépp loo xam ne dañ ko fi nas bu jaaree ci yéen day gën a yaxan lépp loo xam ne dañ koy def te séentu ci résultat aussi bu ngeen ci dugalee seen loxo day gën a gaaw te day gën a sakkan te li may wax nii bu ñu xuusee tuuti ci waxtaan wi dana gën a fes waaw ginnaaw loolu ni nga ko waxee noonu rek la moom association euh, bi dara dugaluma ci lu dul jéem a toppatoo ndigal yàlla yi defe naa ni la mu sant ab jaamam Euh, ñaar jiitu na ci ginnaaw euh, kennal ko benn bi bi mooy salaat bi ci des mooy zakat maanaam julli ak def lu baax rek waaw kon amul benn excuse amul benn euh, dara loo xam ne rek dina war a mën a dox diggante jaamu yàlla bi ak jéem a accomplir ñaar yooyu xëñ na waroon naa wax samit ne yéen waa Séné Sénégal ñu ngi leen di dalal kon jàmm ci dëkk bi ah, di rafetlu seen liggéey parce que évidemment euh, Sénégal Sénégal yi xanaa bu ñu ko xamul en totalité aussi la l'écrasante majorité des Sénégalais xam nañu Sénégal man yor naa Sénégal pendant des années ci sama kii ah, bokk na ci les euh, les stations classiques yi ñuy dem pour am nouvelle dëkk ba et cetera donc daan leen jàmm euh, ci ci dëkk bi. li ngeen fi dox si yàlla na ci yàlla def barke. waa jërë ngeen jëf comme ni ma la ko waxee rek sëriñ bi euh, euh, format wu laaj ak tontu ci non seulement ci laay gën a nekke à l'aise man waaye ci la ñuy déglu di gën a mën a jàppee l'information de façon précise waaw kon jërë ngeen jëf. waaw bon euh, maa ngi doon jàngale Sénégal au niveau du secondaire pendant neuf ans si je ma tromp waaye jamono yooyu Sénégal da doon traversé te loolu dama ciy profité bëgguma guddal mais quand même y a des point essentiels yoo xam ne la jeunesse dañ dañu war a may nopp di di di découvrir loolu euh, les années quatre-vingt fin année soixante dix yi ak quatre vingt Sénégal dafa metti woon parce que non seulement y une crise économique euh, globale mais dafa amoon aussi sécheresse boo xam ne ay conséquences am lu wér la woon xam naa ñu bari ci yéen ñi wax dëgg yàlla booba ay kii ngeen ah, ci gàttal daal y avait un mouvement exode rural boo xam ne nit ñi dañu daan vidéo campagne yi vidéo ñëw Ndakaaru mais aussi Euh, émigration pick-up ñii jëm Côte d'Ivoire ñii jëm France ñii jëm fu ne man ci dig-digal boobu laa ñëw États-Unis en 1985 bi may dugg ci avion duma ma ko rus wax parce que lu bari féete na ma ginnaaw li sama kanam continuer jaamu yàlla rek ba mu jël ma moo moo ci des bi may yéeg ci avion ñaar téeméer mu ne sans poche waaw parce que lépp dama préféré woon bàyyi ko ak sama yaay ak njaboot ko foofa foofu la noonu noonu la crise économique tolloon Sénégal ñu ñëw fii indaale lijaase yi ñu war a indaale indaale niveau bi ñu war a indaale yàlla dimbale woon ma xaw ma dégg anglais quatre-vingt quatre-vingt-cinq pour cent ñëw commencé jàngale fii je n'ai eu aucun problème pour intégrer le, le, le, le système dans ce sens-là. Nekk New York City donc, entre 1985, yàlla def ci jàmm ba 2014 ci laay soog a éligible pour retire ma retire ñëw fii parce que booba tamit fekk na en 2000 yàlla baax nañu kër gi ma indi fi si bàyyi leen fi man continuer pendant 14 ans yooyu ba yàlla indi retraite ma ñëw waaye li ma fa nekkoon New York aussi di di jàngale euh, sunu loxo mësul jug ci vie associative parce que naturellement la nit ñi di ñëw di euh, sàkku manifestation solidarité euh, jàppante boobu defalante ay teranga jàppalante di assistante defe naa mun mun naa waxandi loolu ah waaw d'accord donc euh, euh, concernant la vie sociale la vie communautaire euh, dañu ne cëpp rek am sunu ay mbokk sénégalais yoo xam ne ñu ngi leen daan woowee booba moo du Côte d'Ivoire yi euh, ci gàttal daal la première vague d'immigration sénégalaise yu yu yu yu daanu si fii New York City ñun la woon waaw am nañu ay jaar-jaar yoo xam ne ce serait trop long à expliquer avec le fameux Donald Trump et cetera et cetera mais de toute manière euh, on s'est retrouvé là-bas euh, ñi ma fa ñëwandool maa ngi fàttaliku toujours ma wax ko sa papa Ablaye Samb laa jëkk dajeel moom ak Thierno ci Harlem ma ñëw ne ko nuyu ko yónde kii ku fi ne mu ne ma sëriñ Moustapha Mbacke waaw bu Gaynde Fatma moo fi ne yóbbu ma ci moom ma def ak ñoom connaissance ñu dajaloo euh, utiliser propension naturelle lu sunu sunu tarixa yi nga xam ne c'est des blocs compacts fu ñu dem dañuy àndandoo du ñu tasaaroo bu mukk euh, ma continue ma ma commencé ubbi ay salle ay ay ay ay cours d'anglais Euh, et d'alphabétisation guddi daan ko def Senton Senton Hotel daan ko def Hôtel 110 ak Brooklyn waaw ci waa kër maam Thierno yi donc noonu la euh, ku feebar war a dem hôpital Lamine kaay ma ñëw ànd ak yow su ma wàccee yóbbu la hôpital parce que booba anglais bi évidemment évidemment dëgërul ku bëgg a bind lettre bindal la foofu daal laa commencé di développer habitude euh, di def assistance sociale boobu entre guillemets dans en tout respect nag waaw donc euh, loolu moo ma jox habitude bi daal waaw ba nga xamee ne naturellement euh, je suis membre fondateur l'un des membres fondateurs de l'association des Sénégalais d'Amérique ASA bi ngeen di dégg depuis lors membre comité directeur laay doon yore woon éducation bi le volet éducation wala bokk di participer dans l'effort euh, d'éducation de nos enfants yàlla tombe tombeel ma aussi ci école boo xam ne euh, école bu adapté la woon high school la ñu koy wax Manhattan Comprehensive Night and Day High School 14th euh, Street and Second Avenue xale yi bi ñu ma bi ñu xamee ne am na benn professeur sénégalais bu ne fii ñoom ak seen malien yi la population de Brooklyn et de et de kii euh, de Harlem malien guinéens extra francophones yi d'une manière général ñëw commencé di kii loolu tamit ma ci sant yàlla bu baax parce que am na xale yu bari yoo xam ne euh, sama présence foofu indi na leen fa ba léegi tey jii ay boromi kër lañu jàng nañu ba ba pare waaw ba nekk ay seen i seen i magi bopp waaw ñuy ñaan yàlla loolu boobu yooyu yooyu feem continuer dans toutes les les les les zones de concentration de de Sénégalais voilà euh, sinon euh, loolu daal lañ fi lañ fi mës a nekkee rek Euh, président des États-Unis waaw euh, ñun bi ñuy ñëw boobu Ronald Reagan moo fi nekk waaw Reagan ubbi woon immigration euh, un temps soit peu malgré que sax à l'époque dafa tombé woon ak explosion wu sida ok am Euh, defe naa Jacques Chirac la woon ah, <laughs> euh, wax ne moom war na def attention ci euh, les sénégalais et autres parce que dafa mel ni le virus du du la là ñoom propagation ñoom joué nañ ci rôle ça nous a fait rire mais on a réagi énergiquement je pense mais que euh, il a eu sa sa réponse ci loolu waaw loolu dama koy wax nii rek parce que am na temps daal Euh, président bu fi bu fi bu fi masa nekk moom wax dëgg yàlla quoi euh, à part incident yu yu mel noonu euh, kayit yi yombul yo xaw a gënoon naa yomb sax en réalité Reagan buñ ko fàtte moom moo moo moo indi woon di immigration reform law bi nga xam ne sénégalais yu bari amoon nañ ci ay kayit amnistie la woon baal ñu bari ñëpp am ci ñu bare bare bare am ci ay ay kayit ñun ñii daan ñu def ay ay ay effort pour euh, liggéey ak yenn organisation yi pour essayer de d'aider les gens à remplir les papiers et sax waaw euh, waa New York yi jàmbaar la woon bu baax a baax baax ci loolu compagnie ñoom daam baabu gi et cetera vraiment liggéey bu bu serré woon euh, avec les les mosquées de la place yi fa nekkoon Malcolm X Euh, Shabazz Mosque Malcolm X Mosque euh, joué na ci rôle et cetera et cetera donc euh, Reagan Clinton moom it Clinton yombaloon na dugg Sénégalais yi vraiment ci ci ci dëkk bi sur la base de visa waaw kooku tamit il a participé à la construction si tu veux de la base démographique quoi de Euh, de la communauté sénégalaise euh, de de l'Amérique ah euh, Obama bi mu ñëwee évidemment moom it bon y a eu des et des bas waaye d'une manière générale moom sentiruñu hostilité waaw bu jógee wala des plans de de de rejet global quoi de des Sénégalais loolu xëy na bi. sëriñ bi mujj ni du sëriñ sax la sukaabe ngoone jéey waaw euh, Donald Trump moom bi mu ñëwee moom euh, kooku las ko bi ko gën tàmm tàmm wax bu oyof baaxul waaw <laughs> euh, donc de toute façon moom bi mu ñëwee ci lañuy ñu soog a gis nag benn genre hostilité boo xam ne y avait beaucoup de tension dans l'air waaw euh, kayit yi gën a jafe bon le discours était virulent ak yooyu ñu ngi ñaan yàlla euh, nañu mobiliser woon ma profiter ci lancer appel comme tu le demandes euh, que Sénégalais yi nga xam ne booba ba léegi nag yàllaa nga ñuy suturaal ba beaucoup parmi nous sont devenus des binationaux hmm? nga xam ne am nga droit voter ci élection Sénégal mu jaral la lu ne war na laa jaral la le même la même énergie pour ngay voter fii parce que yaa ngi kayit gi war nga mën a voter du dëgg bul toog di seetaan koo xam ne moom ay ay yéeneem ci yow xam nga ne xëli na bu sottee saafara yàqu waaw le le gëddu citoyen loolu la waaw donc euh, d'une manière globale daal euh, la présidence américaine à part euh, le dernier régime avant Biden

ñu ñaanal ñëpp seeni i këyit gën a gaaw euh, dañu leen di wax rek ne ñoom lépp loo xam ne ñàkk këyit tax na état bi du leen ko maanaam mënuñoo jot ci service de état parce que faute de papier ñun suñu wàll mooy liggéey en tant que communauté pour indil leen service yooyu ah, ñun en tant que communauté mais aussi utilisant euh, sister organisations yoo xam ne ñu ngi fi des organisations à euh, but non lucratif yi fi nekk aussi euh, yoo xam ne dañu def ak ñoom benn coalition waa nga xam ne ñoom it vraiment dañuy jàppale bu baax a baax a baax ci la satisfaction de ces besoins là waaw donc cette protection là Euh, les organisations communautaires daal waaw yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo koy ñoo koy pourvoir bu dee ci wàllu faj la ñëpp xam nañ ne y a des pharmacies euh, gratuites ñëpp xam nañ ne aussi am nañu ay ay cliniques euh, gratuites defe naa Christ Hospital boo xam ne de temps en temps suñu jàmbaar yi dinañ ko dinañ ko publier ñëpp xam nañ ko maanaam kenn nekku fi daal feebar euh, faju tëla walla nga soxla garab mënoo cee jot wala euh, sax léeg-léeg euh, nit nekk ci ay difficulté mën a fay kiyam location wala yu demee noonu ñu def ci li suñu doolee tollool wala lépp loo xam ne suñuy partenaires yéene nañ ñu ko waaw jaar nañ ci am na détail boo xam ne xëy na euh, jàmbaar yi mën nañ ko gën a gën a étoffé waaye daal pour répondre à ta question moom système bi fii le système d'assistance sociale aux États-Unis ne dépend pas seulement de l'État que ce soit de City of Cincinnati wala euh, de State of euh, Ohio wala de federal government les organisations communautaires dañ ciy dugal seen loxo bu baax a baax waaw bu ñu fàttee daayira yi aussi daayira yi daayira yi daayira yi ñoom it ñu ngi dox loolu seen seen seen programme gis nañu leer na ne euh, les causes sociales am na lu bari lu ñu ci àndooseel seen bopp waaw laaj laajuñu kenn lenn mais euh, mi ngi noonu daal les gens sont bien entourés ambassadeur wala aussi consul général bi ci États-Unis dafa am luñ ci rafetlu ak loo xam ne dañ koy dañ koy ñaan wala boog dañuy ñaax le gouvernement sénégalais ñu yokk seen effort waa yow da nga jël passeport comme euh, exemple waaw maanaam benn produit benn benn document boo xam ne sénégalais yi soxla nañ ko bu wér a wér wér wér ok euh, fi ñu ci jaar foofu loolu ci ci ci euh, satisfaction daal les les les les documents nationaux yi nga xam ne gouvernement Sénégal euh, moo ko war a jox émigré yi fañ ci jóge sori na am na temps yoo xam ne amuñu sax consulat pour commencer. waaw ñu ñafe ci yéeg wàcc kërti kërti fexe ba consulat kii yooyu yëpp sama kanam la New York City waaw léegi euh, toll nañ ci foo xam ne euh, New York City euh, après toutes ces années la ku dem consulat deux heures de temps nga fay am boo amee li ñuy laaj ñu jox la sa passeport nga de temps en temps ñi nga xam ni sore nañu New York aussi consulat dafay organiser ay mission Euh, de confection yoo xam ne bu yàggul ñëw nañ fi malheureusement ça ça s'est mal terminé un peu pour de questions euh, à cause de technicité la mais euh, ci gàttal daal dañuy def ay ay ay tournée waaw yoo xam ne dañuy établir ay passeport ak yooyu waaw en même temps aussi dinañu produire yeneen i papier yoo xam ne émigré yi soxla nañ ko bu baax a baax a baax a baax baax comme par exemple transcription des naissances damay wax toujours ne émigré sénégalais typique bu fi ñëw en même temps que moi walla après moi hmm, euh, ay jullit lañu yoo xam ni ku ci nekk yàlla baaxe na la ay bant ay doom yoo xam ne fii lañ juddoo Euh, en moyen un Sénégalais aurait produit trois entre trois à quatre euh, euh, njaboot waaw xam nga loolu aussi c'est la population sénégalaise boo xam ne am na am na essor mais ñooñu la plupart ne sont pas documentés te bu continuer noonu moom le Sénégal si le Sénégal n'y perd pas le Sénégal n'y gagne rien waaw il faut que ñoo ñu ñu intéressé leen bu baax a baax a baax ci l'acquisition de ces documents nationaux sénégalais te loolu li koy gën a yombal li ko war a mën a gën a yombal mooy ñu fexe décentraliser mbir mi waaw le service consulaire doit être présent man sama xalaat hmm? il s'agit pas de créer des des des des consulats partout loolu dafay xaw a cher mais il faut au moins des bureaux consulaires qui sont là waaw comme par exemple dans une commune le concept de la commune au Sénégal yow boo dëkkee par exemple kel waaw doo fa jógee di dem Tivaouane pour wuti kayitu judd du c'est le service euh, la municipalité est là il s'agit de simple kii te on est prêt à à, à contribuer même dañ koy dañ koy def donc décentralisation bi moom la ñu bëgg pour service bi jigee population yi loolu moom c'est un message que nous lançons quoi waaw ñëpp déggandoo ko quoi mais d'une manière générale la générosité est la le consul en service fi toll nii euh, après les autres consuls moom mii wax dëgg yàlla du du man maa koy waxal loolu Amérique yëpp ko témoigneel euh, ak cawarteem ak euh, nu muy kii c'est un frère à nous hein, on a cheminé ensemble là-bas mais ñi ngi jéem li ñu man ñoom dëgg-dëgg pour euh, satisfaire les sénégal ci loolu waaw dañu war a décentraliser rek def ay effort fekk ba ku bëgg carte d'identité mu yomb émigré bu ko bëgg mu yomb ku bëgg passeport mu yomb këyitu juddu yi ñu taxaw ci surtout loolu hmm, état bi def effort yi mu war a def pour dimbale euh, euh, daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk yore alxuraan yi nekk ay centre d'immersion culturelle parce que foofu kuy làkk pulaar foofu nga koy dégg sa doom bu fi juddoo demagul Sénégal wala demam bariwul foofu la koy foofu nga koy exposé ci culture nationale bi dëgg que soit wolof wala tukulër wala beneen beneen làkk waaw essentiellement ñaar yooyu en fait donc le service consulaire à travers ñoom ñu ngi lancé appel notre ministère de tutelle ak le président de la république pour ñu gën a yokk seeni effort ci taxaw bi nga xam ne moom la ñu war a jox euh, les sénégalais surtout ñi nga xam ne dañoo sori les grands centre comme par exemple dans le cadre des États-Unis boo génnee New York il faut nga daw ay huit cent kilomètres mille kilomètres pour arriver à d'autres dans d'autres bourgades là kooku dëgg yàlla c'est un c'est un obstacle majeur voilà jàppale leen ci waaw euh, association bi euh, a été très dynamique sur ce plan la euh, parce que tout simplement man bi ma kiwee bi ma jëlee retraite euh, jàng dafa ma mos neex donc quand je suis arrivé sama euh, premier acte moo doon dem pour def la formation Euh, pour mën a nekk euh, qualifié là pour euh, remplir les les les formulaires de l'immigration waaw mu nekk tamit benn service boo xam ne ñi fi nekk ñëpp xam nañu ne c'est extrêmement cher boo demee ci un avocat privé c'est des milliers de dollars ñun nous l'avons dit et redit ba ba tey jii nii lii ubbeeku nii c'est un cas que je viens juste de terminer euh, donc on est là on l'a toujours été pour ñi nga xam ne dañoo soxla ku leen dimbale ci ci application bi wax nañ leen ko doo dem fenn di fay xaalis yu bari yooyu ñëwal ñu defal la ko à titre gratuit c'est clair net yow xanaa kay yow yaay kii nga ne ah man ko association bi naa ci profité kon ma ma dugal dara ci seen kees wala alaaj Lamine naa ko jox benn 10 dollars wala benn 5 dollars mu jënd encre wala yu demee noonu donc euh, loolu la bu fekkee ne c'est un cas comme li ngay wax nii boo xam ne les autorités de l'immigration bu mel ni juge immigration wala euh, en tout cas les les ñi ñuy wax ICE quand le problème est légal su boobaa am nañu ay ay avocats ñuy liggéeyal ñenn ñi ils sont semi gratuits ñi si des il faut nga fay leen dara mais duñ la bàyyi bu ñu yëgee xanaa ñu yëgu ñu ñàkk yëg mais bu ñu yëgee moom danañ la booleeg looyee boo xam ne moo lay taxaw waaw y a cas concrets yi nga xam ne ñi ngay wax ne ñi ñi jël yoonu suuf yi du ñëpp ngay gis nag du ñëpp ngay yëg seen mbir waaye ñi ci yëg daal taxaw nañ leen ci biir ak ci biti ba tey jii jot nañu seeni i seen i kayit ça c'est des exemples qui sont là waaw mu ngi noonu ñii xam nañu li may wax. plus de cinq ans dix ans wala voire plus dara du sotti te tamit dañuy dem sax bay inventé ay histoire yoo xam ne dañuy tax loolu mun tax seen këyit gën a gaaw. Mhm. léegi nag ma doon laajte yéen en bon au moins ñu xam ne yéen existé ngeen te li nga wax ni jël ay presque des centaines di ko fay avocat da nga ñëw te boo ñëwee si euh, monsieur Ndiaye mu war la ci mën a dimbali gratuitement nga jot say papier dans en toute légalité. oui absolument mais xam nga euh, loo gis rek bon œuvre de construction moo mel noonu euh, l' essentiel c'est de marcher à pas sûr doo taxaw waaye euh, dëkk bi am na benn concentration boo xam ne c'est une concentration sociale noonu laa koy tuddee c'est-à-dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que boo jëlee yoonu suuf wala yoonu kaw moo ci yem boo yegsee ci dëkk bi hmm, fa ngay dal taalibe murit lay mën a doon wala mu nekk taalibe tijaan du dëgg boo àjjuma jotee xam nga ni danga war ngaa war ngaa julli ji maanaam mënoo hmm, réer ci dëkk bi à moins que nga def sa choix wu bopp quoi nga ne man damay isolé wu mais euh, organisation yi fi nekk nekk ay welcoming si bari nañu waaw d'autant plus que aussi ñi nga xam ne par exemple dañuy jël yoonu suuf am na ci ñoo xam ne il semble que dañ leen di téye ci ay centre de détention à, euh, à la frontière yoo xam ne bu ñu demee ba war laa bàyyi temporairement il faut nga joxe benn contact par exemple bu fekkee ne Cincinnati mooy sa jubluwaay am na ñuy dem Atlanta am na ñuy dem Detroit am na ñuy dem feneen mais ñuy ñëw Cincinnati fii nituk Cincinnati mooy mooy engagé wu ne kii man maa koy maa koy sponsorisé daal entre guillemets n'est-ce pas comme ça ñoom ñu mën la mën na mën a wóolu bàyyi la waaw te kooku sunu nit rek lay mën a doon mi ngi ci dëkk bi xamante nañu bu baax a baax maanaam pour pour sénégalais bu bu réere mbir association bi euh, xëy na am na waaye daal li li sax moom mooy que xam nga nit ki nag moom moom mooy mooy def euh, des choix personnel daal di bon je vais m'approcher de tel daayira wala je vais m'approcher de la de de l'association wala nangam nangam mais en tout état de cause man je pense que ah, euh, kii na boo boo maanaam sunu existence euh, tasaaroo na daal waaw ci ci ci li ma xam waaw terewul nag. mass media lu mu dugul rek lu mu dugalul loxoom loolu ak tasaaroom dina des kon maa ngi leen di ñaan yéen euh, xawma ban nu ngeen di éditer mais section bi nii nii précisément fi ma toll nii maa ngi leen di ñaan hmm, ngeen ngeen boole ko ci waaw loolu moom na na na waaw ñuy ñaan yeneen nii yeneen i euh, organisation yu mel ni yéen aussi ngeen dimbale ñu ci loolu parce que Sénégal yi dañu leen di seetaan <laughs> amul benn Sénégal boo xam ni rek di nga di nga miss you know one of these waaw euh, donc mu ngi noonu quoi yàlla nañu yàlla boole dimbalee ci loolu waaw waaye daal mi ngi nii le service et la disponible. Ah, message bi mooy. Euh, dama leen di remercier ba pare di leen euh, encourager ñu continuer liggéey bi damay wax ne ñii seen rôle mooy communication mooy lépp finalement parce que projet boo fi mën a am bu fekkee ne ki koy ki koy présenter nit ñi waxam kiiwul amul talent communication hmm? walla euh, respect bi ko nit ñi jox manqué na ba bu ñu ne ah kokan la ñu ne diwlu mu ne ah waxam nangam mais ñaar ñii ak euh, yeneen i personnalité yu nekk ci dëkk bi li ñuy wax nag c'est l'occasion de le dire c'est des voix autorisées c'est des voix autorisées waaw man am na yu bari yoo xam ne dama koy bëgg a def waaye ñoom ñaar ñi duñ ma bàyyi mukk ma wax loo xam ne du dëkk waaw ëma Pape Gora bu fi nekkee walla kii ku fi mën a ne ma ne Pape Gora la lan nga xam ci nàngam dafa am lu tax may wax loolu parce que je les ai vus à l'œuvre ci organisation yu gën a mag yi sunu sunu association bi bu ko gën a mag ci nombre ak ci gëdd hmm? ñuy yore di di di régler su euh, euh, kii bi communication bi de façon magistrale bu la neexee sax nga indi ko sur le plan concret am na benn sénégalais bu fuy génn àddina euh, yal na yàlla yërëm ko loolu li ko yërmande biñ ci jotee en l'espace de deux jours defe naa cinquante mille dollars la woon si je ne me trompe wala jege na ko en tout cas c'était un chiffre absolument énorme ci ñaari fan mu wóor ma ni man damay wax rek mais dox beeg kii bi maanaam collecte bi ak I think you know xam nga li may wax maanaam communicateur bi daal moom lu mu gën a efficace rek mbir gën a gaaw a euh, sotti te ñoom ñaan ñi kenn mënu leen ci loolu moo tax kenn du fi ngénte walla dëj am fi walla euh, daayira xewle fi su fi Maam Mor Mbàkke ñëwee keneen ku mu fi mën a ku mu mën a doon ku fi ñëw wala consul général wala comme mu fu mën a ku mën a nekk man mii bu ma bëggee def dara wóor na ma ni su jaaree seen loxo j'ai mille chances de réussir sax voilà kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax te di leen di leen ñaax di leen di leen encourager ne liggéeyub yàlla nag du jeex daa mel ni julli rek tant que yaa ngi am un souffle boo dee boo dee tëdd di julli sax di àppaat da ko war a def kon jàpp leen mu dëgër rek bu kenn bàyyi. waaw ci cadre éducation euh, muy euh, éducation élémentaire secondaire ak kii ak euh, enseignement supérieur bi ak éducation culturelle waaw. waaw waaw effectivement. waaw euh, cadre éducation moom dinaa ci sawar a wax parce que loolu mooy sama métier de toute façon waaye euh, daf ci am ay points yoo xam ni faw ñu leeral ko euh, sàkku ci ndimbalu parents yi dolli ci la ñuy la ñuy def effort yi ñuy def s'agissant de éducation au niveau élémentaire kooku mook éducation secondaire ñoo yem. wa ilaa xale bi fii la juddoo kooku bu amul benn problème euh, parents yi dinañ xam fu ñuy jaar ba dugal xale bi école euh, littératie cent pour cent lay doon le plus souvent euh, y a pas de problème en ce niveau là xale yi nga xam ne aussi dañuy maanaam dañuy ay émigré lañu xale des enfants émigrés Euh, yoo xam ne seeni parent parents dañ leen fay indi se sont retrouvés daal aux États-Unis fii euh, foofu tamit am nañ fi am nañ fi rôle parce que euh, association bi day servir aussi comme centre d'accueil si tu veux dimbale xale yi ak seen i parents ñu dugg école bañ nekkee New York loolu la woon fii tamit c'est la même chose moom kii na boobu système moom mi ngi mi ngi dox moom. waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di surveiller bu baax a baax waaye am na beneen xeetu euh, éducation boo xam ne euh, formation mën nañ ko wax euh, immersion culturelle sànq brossé naa ko waaye dama ci bëgg a insister bu baax a baax pour attirer l'attention des autorités encore une fois ñu xam ne xale yi nga xam ne dañoo juddoo fii ñooñu amuñu benn problème ci éducation académique bi vraiment Euh, peut-être problème yi ñu ngi commencé ci ci collège rek bu fekkee ne parce que collège moom bu bu free amul fi maanaam bu gratuit amul fi moom jàng moom da ngay fay allah kulli al da ngay fay waaw sinon ça marche pas loolu aussi on se débrouille tant que mal parce que ay kii la ñuy doon ay euh, ay citoyen la ñuy doon wala bu fekkee étranger la aussi on se débrouille comme on pour jàppale leen euh, waaye. li ma bëggee a dëgg daal mooy euh, xale yi nga xam ne c'est de mën nañ ko waxee noonu de sept à vingt quelque années euh, ces années de formation là euh, ginnaaw enseignement académique académique bi ñuy am en l'école américaine dañu bëgg ngir yàlla ñu dimbali daayira yi parce que ñoom ñoo yore alxuraan yi ñoom ñoo yore jàngaleem langue nationale yi waaw Euh, te loolu sax dafa war a am prolongement processus d'immersion culturelle la wala doon boo xam ne dafa war a am prolongement ci euh, rudiments yi mën nañ ko jëlee ci daayira yi parce que école week-end rek lay doon nag finalement mais aussi euh, ci biir kër yi ñun ñëpp ñu on a les les les de télévision sénégalaises ak seen seen plateforme yi xale yi dañ ñuy gis ñuy seetaan ak yooyu mais xam naa. Euh, il faut ñu def ay effort daal waaw waaye prolongement bi may wax mooy l'organisation de colonies de vacances des vacance culturelles yoo xam ne mën na bañ a nekk rek les les les sénégalais d'Amérique ah bon italien sénégalais yi wala franco sénégalais yi euh, france nabe yi comme ni leen di woowee et cetera et cetera waaw euh, on a discuté dernièrement ak waa Air Sénégal. Hmm, pour ñu yombal euh, organisation wu euh, kii yooyu euh, colonie de vacances yooyu waa ñoom tamit ñu ngi leen di lancer appel à travers votre antenne ah pour état bi na ci dugal loxoom aussi bon dimbale xale yi ah xale boo xam ne dem na Sénégal surtout ci dig-digal boobu ci âge classe d'âge boobu day am solo lool parce que foofu lay mën a découvrir ay racinam hmm, Euh, take interest maanaam développer un certain amour un certain amour euh, pour son pays d'origine waaw pour ñun du problème ñun ay kii lañu euh, sénégalais de de naissance quoi si tu donc loolu systématiquement dañ ko war a organiser waaw ba évidemment loxo parent bi du ci jóge waaw même même xale bi nga xam ne sax teenage la war na ca mën a mën a dugal loxoom quoi di organiser yu mel noonu daal waaw je sais que daayira murit bi euh, am na benn programme def naa bu mu fi bu mu fi initié waaye sunu yéene daal mooy état bi lañu koy laaj bari na waaye nag am na yoo xam ne c'est le Sénégal qui gagne waaw il faut tout faire pour euh, réconcilier ces enfants qui sont nés qui nous sont nés euh, avec leur patrie d'origine te loolu culture rek moo mën a mën a def boobu boobu boobu boobu affaire ba moo mën a créer boobu boobu lien voilà bëgguñu guddal ba mu ëpp mais loolu laa ci bëggoon a wax oh euh, c'est sûr que aussi Sénégal Afrique d'une manière générale soxla na la formation de de médecins la formation d'ingénieur euh, cadre yi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy mën a jàpp ci le vrai programme de développement du Sénégal et de l'Afrique de tous les pays d'Afrique en réalité ku ci nekk rek nation bu ci nekk war ngaa mën a jàppale say émigré yi nga xam ne say les doomi émigré yi nga xam ne ñoom ils sont à l'extérieur nekk ci euh, maanaam formation yooyu formation ingénieurs yi ak ak ak médecins yi hmm, c'est vrai que c'est cher c'est dur ici mais euh, c'est à portée mi ngi nii waaw te xale yooyu ku leen intéressé ci seenum réew boo liggéey en un temps trois surtout boo ko boo ko organisé euh, rapidement on peut former assez d'ingénieurs assez de scientifiques assez de de de cadres yoo xam ne hmm, li ñuy jooy boobu ba léegi naan woy way tubaab bi dañoo taxaw fii nangam nangam il faut que boo fa jëlee dara nga teg fa dara nag du dëgg bon li may wax rek mooy ñun émigré yi bëgg nañu bu baax ñu intégré ñu ci système yooyu ba nga xam ne euh, suñu doom yi il vont se trouver une nouvelle mission d'assistance et de participation euh, à travers la technologie et la science ci développement dëkk bi waaw. ñu profité ci rek ci li nga xamante nii sunu rakki bopp El Hadj Mouhamadou Mbaye Mansour wax na ko am na point yoo xamante ni il faut ñu laal ko tuuti ci association bi mooy li nga lii mu leen wax ñu koy def yëpp ay volonté la ñoo koy def ñoo xamante ni kenn jiitu ko ci moom mais du Sénégalais yi ñi fi ne ñooy yëkkati seen xaalis li ci bari ñoo di ko ci def dañuy am sax ay problème cotisation bi ci mujj di finalu Sénégal bi bi mu jëlee coupe bi pour ñu war a am lu mën a def rek moom moo génn xaalisam ca lu bari na yu bari yu am xam nga ko mu waroon état mi ay doomi réewam génn état moo war a xam bépp doomu Sénégal bu génn rek xam ni yaay la président de toutes les Sénégalais ki la contre ki la contrôle ki ne ci réew mi ki génn yow lañu jiital yor sàmm la sàmm sa njaboot jox la waruwaay jox la moyen de international boo bëgg a dem nga dem ñëw kon ñun association yi dañuy lott ci loolu ñiy génn di dégg fu ne di ñëw ngay dem ca say bildoog yaa koy fay sa bopp ku mel ni Souleymane di vice di nga xam ne mi ngi nekk ci association bi ku mel ni Serigne Ndiaye ku mel ni vice présidente bi di Maretu Mbay ku mel ni ñooñu ku mel ni euh, euh, Pape Gora bi nga xam ne mi ngi fi nekkoon ñooñu dañ nga gis man ci lim ñooy def ay volonté léeg-léeg di génne seen xaalis di ko def te pourtant bu consul waree ñëw wala nga war a soxla kayit kayitu judd wala dara boo ko amul da nga kaas waa consul bi nii mais yow doo mën a yëkkati sa tànk pour ñëw ci association de Sénégal pour xam devoir la ci Sénégal bu ne dëkk boo wàcc nga laajte ndax am na daayira wala ndax am na association de Sénégalais wala fan la sama mbokki ne te boo xoolee la plupart ñi ciy sonn def seen xaalis taxawloogu leen ci da ngay liggéey ba dajale mu bari ku ci musta ñëw wala amul taam jekki-jekki wopp wala mu feebar wala mu dee te doo xam nooy def ay mbokkam wala kon nit ñi aussi nan xam ne gor suy dund nekk cim réew mënuloo sa bopp te xamoo fooy faatu danga war a ñàkk sa bopp ba dajale loo xam ni tey jii boo dee mën la wala boo feebaree nga mën yóbbu sa bopp boo ko mënul nag bañ a sonal nit ñi war ngaa ñëw ndax gor su ñëw di dund bu neen Sénégal ah dem Sénégal duna bari wax du ma dem daayira daayira ay coofay am murid yi te yow boo dee woon wala nga am problème say mbokk jaaxle amoo ku la taxaw kon loolu lu nit ñi war a xool la di ko bàyyi kon ñuy lancer appel ci bépp sénégalais ak sénégalais bu ne ci réew mi xam ni lii du Sénégal moom mi woo nañu ba tey ñu nu dafa bëgg ñu def assemblée générale ñu ne ko dun ko defagul ndax Covid bi am na. te yow sa santé des na tuuti yaa ngi sonn di te li nga ci man mënagoo ko te du liggéey liggéey ba mu toll fii ñu si ko sànni kon da nu may ba nit ñi toog ba dal ba Covid bi jeex ñu informer képp ku ko war a mën a yëg ñëpp mën a toog ñu xëcc gone yi ñu ñëw continuer jël relève bi ànd ñu ñuy liggéey donc loolu lu leen di témoin la di leen ko ci def encore une fois di xam ni nag ku seetaan lii xam ne di lu nu préparé yéen ñi ñëw di ñu jël si démb laa yëg ni fii ñëw. soin bu sekk ngeen jokkool kon yëf yi dafa bette lu bett nag lu ni këtt lu ni jot na koy fay ku seetaan lii rek xam ni du la station bi tëbu na bu fekkoon ni dañ koo waajaloon dañ koy def ci saal yu ngand nit ñi ñëw mais lu nu bett la di ñëw ëllëg bu ñu dee ñëw ba yéen contact yi ngeen am gën a yaatu dinañ gën a yaatal bisi ba day jar sax bu ko korogee ñu organiser ba ngeen gis suñu manifestation ak suñuy xew ak yu ñuy def kon dañuy bàyyi El Hadj Mamadou Mbaye Mansour suñu rakki bopp mu tëj ñu daal di tàggoo fii kon El Hadj Mamadou Lamine Ndiaye encore une fois ñun fier nan ci bi nga xamante ni euh, xam nga ñun ay régulateur de société lañ yoo xam ne dañu yor communication far warunu waaye nag njariñ bu war a génn jëm ci communité bi war nañu ñu leeral ko ba nit ñi xam ni gis nañ njariñ lu mën a dimbali communication bi mën a dimbali société bi looloo tax bi mu retraité nu sol suñu dàll ni ko gis nañ ni expérience bi nga am donte bëgg nga toog say famille may nu tuuti même bu dee benn mandat booy def ba tekk yëf yi ci nit ñi mën a xam ñu continuer loolu rek fi am donc El Hadj Mamadou Mbaye Mansour sama rakk bi. jëf Papa Gora sàmb defe naa ni nanga nga baax rek di ma jox pour ma tëj mais mëtale nga lépp mu am nag ñaari message yu fi jaar yoo xamante ni. dafa am importance pour ñu taxaw ci benn bi ci jiitu mooy boo nekkee bitim réew ñi fi nekk doon ay sénégalais ci euh, communauté bi ñooñu ñooy sa mbokk te fexeel ba ñu ràññee la fenn fépp fu mu mënti nekk nag baax na muy ci association des sénégalais de Cincinnati baax na muy ci kër maam Cheikhul Khadim gi baax na muy kër ñaseen yi baax na muy kër laayeen yi baax na muy kër Seydi Aj Maalik baax na ndax bés a ngi ñëw dinga soxla mbooloo ndax dëkk bitim réew boo fi nekkee mënaloo sa bopp dara yow kenn kon loolu lu mat a bàyyi xel la beneen bi it mooy dañuy wax rekk te yàlla rekk a tax muy message boo xamante ni dañ koy lancer le président de la république mooy ñun de yegguñu ci ambassadeur mais ki ñu gën a jege mooy la consul général di El Hadj Ndaw ñépp xam nañ fi mu bokk ndax ragal péete day xañ a wërsëg mais yàlla baax na ba mu ñu dimbalee ba mën a def la part de chose ba nga xamante ni kenn mënu ko jam baaraamu tuuma te it yée nañu laaj dinañ leen wax ñi fi jaar ñëpp en tant que consul te mu fekkuñu fi yàgg nañ fi def nañ fi plus de vingt ans sant nañ leen gërëm nañ leen ndax liggéey nañ mais El ndaw Ndao mii bi mu ñëwee li moodu yi soxla woon yëpp mëtale na ko loolu lu jara wax la ndax Amérique boo fi nekkee tu es indépendant yaakaaroo kenn sa doole nga yaakaar ak sa coono mais du tey boo gisee nen ne nen a ngi moom ak équipe bi mu àndal ci consulat ba li leen di senegale yi di doyee yépp ñi ngi ci loolu nag du ay soppeem ak ay xaritam walla ay mbokkam a ko wax mais loolu ñi ko wax mooy sénégalais yi nga xamante ni bokkul ak ñoom fañu fa ñi ko wax mooy sénégalais yi nga xamante ni dañuy wax te yàlla rek tax kon loolu it bu fekkee daf koy def te ñu seede ko témoigner ko dina baax ñu yóbbante ko ci ñi nga xamante ni ñoo ko fi teg te wax leen ni El ndaw daal nit ku communauté sénégalaise bi nga xamante ni vivant aux États-Unis respecté la loolu daal moo doon kàddu yi di leen ñaanal yéen waa Sénégal yàll na yàlla wéral cër yi yàlla sàmm leen ba ngeen dox seen mission ba mën a ñibbiwaat seen njaboot jàmm te ñu ngi leen di wax ni daal bés ni ki tey boole nañ leen ci communauté sénégalaise bi nga xamante ni moo nekk seen Cincinnati yi jërë ngeen jëf